lii de bis bu rëy la ci ñun waa Morolan ndax yàgg nañu di organiser ay journée culturel ñu bëggoon monsieur Mbagnick njaay président de Ndefleng ñëwoon fii loolu mës ñu ko am yàlla moo def tey mu ñëw fii en tant que ministre dama bëgg waa Morolan tàccul ñu bu baax a baax ministre bi dégguma dara dégguma dara tàccule ministre bi waay tàccule ministre bi monsieur le ministre dañ lay gërëm dañ lay sant keroog waa journaliste journaliste dañ ma doon dañ ma doon maanaam interviewé ma ni leen Mbagnick de xaw ma beneen ministre waaye dafa woyof ndax def may woo def may envoyé SMS te loolu defe naa lu rëy la fi nga teg sa tànk monsieur le ministre foofu la ndax autorité dafa war a woyof duggante ak askan bi xam nañu ni yaa ngi def loolu gërëm nañu ci ñu ngi lay encouragé ci loolu. gis nañu ne tamit yaa ngi bëgg a dékkali culture bi ndax xawoon na ta xawoon na suñu waxante dëgg rek culture bi xawoon na sooxe. benga nga ñëw bëgg loolu gën a jëm kanam dégg nañu ni fes nag ñu ngi koy waaj Kaolack kon monsieur le ministre programme boo teg ñun dinañ ci jàpp gunge la pour que loolu Sénégal gën gën a jëm kanam kon boog vraiment merci beaucoup monsieur le ministre ci sa taxawaay bi ci des lii occasion la pour ñu mën a wax peut-être euh, lu ñu fi tax a daje tey dañoo ñëw fii pour maanaam def ay journée culturelle pour que ada ciosan yi nek Morolan ndax Morolan amna na séeréer ndut ñoom ñoo ëpp mën na wax ni témèr bo jël presque juróom ñett ñeenti fukk yi ay séeréer ndut lañu wolof yi ñew amna sa ay peul suñu jaamu peul yi ñu ngi fi kon jaamu peul yi aussi ci lañu bok manam ada ak ciosan lañu bëgg a dekkali fii biir Morolan ndax gis nañu ni lolu mu ngi sooxe xalé yi ñu ngi bëgg nekk wala leneen damay faral di wax ni ñun mënuñu nekk chinois mënuñu nekk américain mënuñu nekk leneen lu dul naa séeréer ndut wolof wala pël mënuñu nekk leneen loolu nañu fexe ba xale yi xam loolu keroog maa bi ma demee Diamaguène seen journée culturelle maa ngi leen di ñaax pour que ñu làkk suñu doom yi séeréer ndut ñu làkk leen pël ñu làkk leen wolof ndax ñu mën dégg suñu làkk yi loolu tax je pense que dañoo wax ni maanaam journée culturelle yi dañ koy maanaam fexe ba mu dëppale ko ak maanaam développement coosaan bi Senghor da doon wax ni maanaam président Senghor développement mënul am bu dee aada ak coosaan yi wëcc nañu ko te bu ñu seetee dëkk jëm kanam maanaam mooy ay Chine muy ay Japon ñooñu dañu jël seen aada ak coosaan ñu ñu maanaam jëlee leneen feneen loolu moo tax ñu gën a jëm kanam kon dañu góor góorlu ñu fexe ba loolu mën a am fii Morolan ñu ngi ñaan en tout cas ñu ngi encouragé ñii def maanaam écriture langue ndut ñu góorgóorlu ci kiis ki ndut ndax monsieur le ministre je profite de l'occasion pour dire que langue ndut amonna na loi biko reconnaître woon waaye ba léegi amul décret d'application loolu yàgg na kon ñu ngi ñaan bu am pour que maanaam langue ndut am décret d'application pour que ñu mën ko reconnaître au niveau national loolu vraiment ñu ngi koy ñu koy ñaan bi ci des manam occasion aussi pour nous mën wax suñu quelques doléances nous ñu wax lu nous lu ñu quelques wax maanaam quelque la rek bi le cas de Dangote monsieur le ministre bind nañu président de la république Dangote dafa installé wu ci commune Morna mu jël fa 443 hectares ba

jàmm am loolu vraiment ñu ngi ñaax état senegal loolu am boo seetee tamit biir biir biir Morolan fii ñeenti dëkk rek ñoo amagum courant am na dëkk yu xam ni bu mel ni caay fii lii yàgg na foofu torop am na fa ñaari at ba léegi courant ñëwul ay dëkk yu mel ni ñu ngi ins jéem nañu installé ay courant donc ñu ngi ñaan tamit électrification rural bi mu ñëw. amoon programme PUDC Yalla la def dañ ko fatone le PUDC Morlan bokk ci mais nous ngi profité occasion AMS association des maires du Sénégal ndax wa bureau bi ñu ngi koy corriger ñu ngi ñu ngi xol dekk yu xamni manam PUDC comme Morlan ñu réintégré leen manam ci courant ci tu vois, l'équipement, nous avons donné le 13 au plus tard ñu faire. mais là, je pense que avons une solution Bides, Madame, Tir, ci doléance yi fi à côté moi ex maison communautaire dañ ko un centre de formation centre de formation def jox nañu hectare état c'est un peu dommage la centralisation continue encore parce que tabax centre de formation waroon nañ ko mën a jox commune bi mu gérer ko mais état moo géré chantier boobu depuis un an deux années scolaires ñu ngi nii di jàll centre bi mënul maanaam entrepreneur bi fay nañ ko xaalis bi lekk na xaalis bi dem na gis gisuñu ko état bi nekk pour man na jël mutuwaayam pour ñun état moo moom chantier boobu na na jël mutuwaayam pour que xale yi maanaam am fu yaatu ndax fii cent cinquante élèves xëjuñu fii

madame Barry, Madame Moïse, autorité autorité administrative locale nous ñu ngi leen gërëm donc jot nañu message pour le FESNAC So, la semaine prochaine mor dina contribution pour que Madame la région de Thiès en tout cas a des ginnaaw ngi gërëm ñëpp di sant ma weekend bi na nous weekend nu jàmm weekend bi na nekk weekend nous weekend bi na Nous, nous ñun duñu ko. fooye képp ku bëggoon naxasaay weekend bi dinañu diggale ak yow ñun duñ ko nangu donc maa ngi ñaa ñaari équipe yi final nañ ko ñëw ak jaam football kii gagné gagné dem yoonam làmb bi suba tamit jaama dañ ciy ñaan kon boog jeunes yi ñu ngeen di ñaan bu leen jéem a yàq li ngeen moom ku ko bëgg yàq tamit je pense que duñu bàyyi aussi nit di ko yàq kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm pres bi vraiment ñëw ngeen ak doole c'est ce fils du SIN, M. le maire, qui vient vous apporter son soutien et sa solidarité. C'est une très grande surprise. Monsieur le maire, merci beaucoup, merci d'être venu. Monsieur le maire, en venant encore à Mont-Roland, je ne peux pas ne pas avoir de pensées envers mon ami et frère Victor VI, ce haut cadre de la commune de Mont-Roland, brillant intellectuel, très consciencieux, qui fait un travail remarquable au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports mais également au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Je ne peux pas également ne pas saluer véritablement Thomas Gana 6. Thomas Gana est un acteur culturel incontournable dans la communauté et dans la culture ndoute. Merci Thomas pour tout ce que tu as fait pour d'abord faire de Hagen et Djambogne ce que cette association a été et sera encore. Mais permettez-moi de remercier et de me souvenir d'une grande actrice culturelle s'appelle Dabaya Mère. La Mère a toujours, après une autre actrice culturelle, Sophie Gaye. Gay. Bayamère et Sophie Ndoukoura ont animé pendant des années et des années les soirées culturelles serrères de Fleng à Sorano. Qui ne se souvient pas de ces pas de danse et de ces rythmes endiablés qui ont fait que toute la salle de Sorano s'est souvent soulevée avec des applaudissements euh, nourris. Merci à Dabaya Mère, merci à Sophie Ndoukoura. Mais je saluerai au passage Madame Tissambeng, une grande dame qui toujours contribue à raffermir les liens qui unissent les communautés serrées. Merci à Alain Dien, un acteur très dynamique au sein du ministère de la Culture et de la Communication. Monsieur le préfet, monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que j'arrive à Mont-Roland. Plusieurs fois, je suis venu participer à des manifestations culturelles. Ici, en face de cette maison communautaire, nous avons, avec les populations d'outre et les associations d'outre, codifié la langue d'outre. Nous étions là avec l'ancien directeur de l'alphabétisation. de ce jour-là, c'est vraiment toute la variété culturelle noutre que nous avons vue ici. C'est vrai, la langue noutre est codifiée. Elle est devenue une langue nationale. Nous allons essayer de faire en sorte que les décrets d'application, pas seulement de la langue noutre, mais de plusieurs autres langues, puissent être pris pour que véritablement l'alphabet soit codifié et reconnu plutôt par l'État du Sénégal. Mais d'ores et déjà, vous pouvez, à travers des projets d'alphabétisation, commencer à enseigner la langue d'autres. Moi, je pense, en tant qu'acteur culturel, qu'il ne faudrait pas qu'on codifie une langue et que ceux-là qui se sont battus pour qu'elle soit codifiée la laissent tomber parce que le décret d'application n'a pas été pris. Donc je pense que je vais m'en ouvrir à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et à Monsieur le ministre délégué à euh, chargé de l'alphabétisation avec Madame la directrice de l'alphabétisation pour que véritablement une, attention particulière soit accordée à la langue que nous, nous avons codifiée ici. Et ça, je m'en souviens très bien. C'est dans cette salle que nous avons pris le repas et j'étais parti prier dans la mosquée qui est derrière. Donc je connais bien euh, ce problème de codification des langues. S'agissant des autres doléances, je crois que je les ai notées avec M. le gouverneur. Nous allons ensemble essayer d'y apporter des solutions. Mais ma présence ici, à rôle est doublement significative. Elle l'est premièrement parce que je suis un fils de la communauté sérère. Je suis le président de l'association Nefleng, où l'association de Moroland en fait partie. Et un de nos vice-présidents s'appelle Morbeng. Donc, je pense que quand Moroland avec son maire, organise des journées culturelles, je me dois d'y être. Je me dois d'y être présent parce que aussi je suis le ministre en charge de la culture et de la communication. Et qui dit journée culturelle dit la présence nécessaire et obligatoire de celui-là que le président de la République Macky Sall a confié ce département. Et c'est pourquoi malgré les multiples sages les multiples activités, j'ai décidé je vous l'avais promis d'être à Mont-Roland avec vous pour participer à la célébration et à l'organisation de ces journées culturelles. Ces journées culturelles sont extrêmement importantes parce qu'elles mettent en relief les cultures locales. Et comme ces cultures locales souvent dépendent des communautés mais des collectivités locales, il est normal que l'État central vienne soutenir ces dernières. C'est pourquoi, quand vous m'avez invité, j'ai tout fait pour que mon département puisse s'impliquer. Ce que vous avez montré tout à l'heure, à travers des prestations culturelles, mais à travers également euh, tout ce que vous nous avez montré, que ce soit le grenier, que ce soit véritablement les chapeaux, que ce soit les tissus, mais également que ce soit les colliers. tout à l'heure,

di ko denc di ko wékkal seen gan yi ci seeni i baat wan na ne yéen a ngi jàpp seen cosaan bi léegi jërë ngeen jëf yéen jigéen ñi jërë ngeen jëf yen xale yu góor yi lii ma dégg fii tey muy ndënd yi nga xam ne yi bàkk yi ngeen bàkk ah nga xam ne pecc mi ñu fecc fii wane na ne Mont bu Dabaya Mer Mont Rolland bu Sophie Ndoukoura Mont bu Lamine Ciss mais Mont Rolland bu Victor 6 ak Tamagana nekk na Mont Rolland boo xam ne bii cosaan ak aada def fi dund. séeréer muñ meestaan yéen wanuy nara nara bis ay la séeréer muñ meestaan amante mbal never never said it. yen wonun serer yen it. serer amante mal anaba naba serer yen wonun serer yen wonun serer fetiro fanasan Futilniro fuyele for sanfora la wogi se femme Digga kula fila Fetira fanan san loda Futilira fiyele tinga na san fura La hogi se fam Digga kula fila Yen hamdara isan fi yen beb Yen da bokore Tat ko petim lo yen kondi biyantan Bah, journée culturelle dafay tax nga fàttaliku démb économie culturelle mooy tax nga xoolaat sa doxalin démb li ci baax moom la ñuy wane nii ndax lu bon li kenn bëggul wane lu bon li nga xam ne lii moom la mu baax moom la ñuy gëstu démb boo taamay faral di wax ni ndutu tey jii mooy dund mooy bind ndutu démb pour ndutu ndutu ëllëg dégg nga ndutu ndutu ndutu tey jii mooy bind ndutu démb pour ndutu ëllëg loolu kon euh, fi mu ne nii euh, loolu mu ngi ci journée culturelle yi loolu mooy seen importance bu ma jógee ci loolu li may wax ci cosaanu nduttu yi mooy ni nduttu ay séeréer lañu te dañuy faral di wax ni séeréer yi dañoo mel ni taatu taatu guy amee ay ay car yu bari loolu moo tax soo sa nekk c'était au Sénégal nit ñi mënuñu ko sax mais am na fanweeri fanweeri groupe ak benn fanweeri groupe séeréer ak benn moo am Sénégal fanweer groupe ak benn alors ñun ñu fausse ñun ñu dañoo bokk fanweer yooyu ndax soo c'était région wu Thiès euh, ñu di wax les séeréer du nord-ouest wala séeréer càngin euh, en 2001 ci journée culturelle séeréer yi dama ne bañ na bañ naa ñu tuddee ñu càngin cangin mën nañ ko appliqué xëy na ci waa Thiès yi noonu yi parce que euh, cangin turu Thiès la wante ñun ay séeréer lañu te ay séeréeru ndutt kon goxu ndutt la ñu nekk kon mënuñu tuddee ay séeréeru kon loolu li tax ma ne ñun séeréer lañu comme ñëpp ndax keroog ba almoravid yi ñëwee gàddaay euh, Mappa Fuuta ndax indi l'islam la séréer yëpp gàddaay euh, naar bi bind bindkatu naar bi ñuy wax El Bekri moo bind li ñuy wax ci nasaraan description Afrique septentrionale en 1787 moom bi mu ci bindee dafa ne dëkk a kuur wolof bi mais dëkk xam nga baatu dakk baatu dëkk ci wolof mu ngi jigee ci baatu arab bi ñuy baatu kuur ci wolof ñu ngi jógee ci baatu arab bu ñuy wax kiir ñu ne dakka kiir ñu jógee ci dakka kiir nekk dëkku kuur ba nekk dëkku ruur moo tax may faral di wax ni séeréer yi ñoo jox alpulaar yi turu tukulóor ndax tukulóor mu ngi fàkkoo ci baatu dëkku kuur kon loolu nga booba jamono séeréer seen xamba yi moo indi dakka kiir ndax seen xamba yi lañ doon dañu seen samp ay buur ci suuf loolu moo tax Albert ni ne dëkk kuur yi maanaam di ko hôtel yi ci xampa yi alors bi naar yi mbaabee Fuuta noonu ci la séeréer yi jëlee yoonu gàddaay ñu dal di bi ba ñu traversé fleuve bi ñii ñi jëkk ñëw ñoo ñëw ba Mbalaga Mbalaga mu ngi nekk fële jëllëg ba ñu jógee Mbalaga am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon euh, mbul ñaari tabel yi nekkoon daan amal ngoon sabel premier ndax lan parce que ndax euh, géwél yi sàngooni kuy euh, euh, amal ngoon sabel xam nga ba mu gañee jolof dafa ñëw mu ne papam dootoo laman wante dameel nga ndax papam mooy dëcc fu njóogu mu seyoon ak euh, euh, euh, kii nu mu Ngoone Sobel Ngoone Sobel mooy rakku Ngoone Sobel mooy rakku te ñu bawal bu doon wax sëñ ñoo xoon Njaay ko jigaan Ngoone Sobel moo nekkoon rakkam léegi amara Ngoone Sobel ba ba ko géwél woye wooyee mu may leen nag ñu ne ah nañu woy kilifa séeréer bi mu leen wooyee it kooku dal di leen euh, jox nag wante ci tradition séréer boo joxee nit nag xanaa tag bi dafa soxor da ngay joxe ñaar nit ñu gunge nag bi foofu géwél yi dal delluwaat dal di delluwaat ci jamel bi mu ne ko yemul ci maye nag ni yow wante fa ñaaree maye ñaari jaam loolu mooy source conflit bi loolu moo tax ndu tuy nga daayee euh, Euh, mbul mbul kajoor xam mbul kajoor mu ngi nekk diggante Mboro ak Kébémer ñu jëlee jadaayee mbul kajoor dem sañ ca Tiwaawan moo indi quartier turu quartier ndut ba fa nekk. moo indi turu fa nekk it ñoom euh, noonu foofu lañ leen romb ñu leen yéen da ngeen jege damel bon naa damel ba euh, ba leen damel bi fekkee foofu lakka seen tata yooyu ñoom ñu dal di gadaayaat dem sañ Njaasaan Njaasaan ci làkku dut mooy aj daa yedd saañ bu ñëwee ñu dem léegi ñoom ba ñu demel bi ba leen demee bi tàkkee rek Njaasaan dañu wër ba eh, dañu wër pade dem eh, zone gox bu ñuy wax Sili Sili soo ko gisee mu ngi nekk diggante Pout ak Sébikotane foofu mooy Sili mais booba demoon am na eh, lignée maanaam xeet bu ñuy wax saafi ñoo doon ñoo doon jiitu bu ñuy bu ñuy dox ndax ñoom ñoo doon prévenir bu dee am na lu war a dal ci askan wi ñoom ñoo ko doon wax saafi yooyu nag seen daay moo mujjee ndax bu bu ñu sonee bu ñu liitee kees bi ñëpp dañuy taxaw kenn du kenn dootul euh, euh, dellu ginnaaw léegi kilifa yi dañuy taal daay loolu la ñuy wax ci droit de feu bu ñu taalee daay daay bi fu mu yem rek mooy sa terroir. léegi daayu safi yooyu dafa dem ba Petite Côte dafa dem ba euh, géej lolu mo indi métissage yu séeréer saafi yooyu ak wa Petite Côte motax sen seen wouté ak làkk du tey tey. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le sous-préfet de Pambal, Monsieur le maire de Morolan, Monsieur les chefs de village, Madame et Monsieur, chers invités, aujourd'hui réunis, nous avons le grand plaisir de vous recevoir à ce cocktail de célébrer du week-end culturel que nous entendons depuis longtemps. Grâce à votre engagement à toutes et à tous, soutien que cela a pu réaliser, que nous vous en remercions. Il nous a été possible de réunir aujourd'hui pour célébrer cette journée, qui est nécessaire la célébration de la culture doute. Et de ce soir, D'ailleurs, les activités culturelles vont se poursuivre. Notre politique de développement à rendre notre artiste, historien, comédien, reggae, rappeur, etc. Plus de 100 groupes à Morlan, terre de culture notée manquant d'infrastructures. Jeunesse et sport. Construction d'un complexe sportifs, modernes et aménagement d'espaces jeunes réorganisés l'avenir de Morland est promouvoir la disciplinarité, regrouper les ASC autour d'une place, forme sportive et socio-économique, augmentation des subventions des ASC en l'entendant aussi des autres associations, culture et loisirs, revaloriser l'actuel culturel, promouvoir les sites historiques, organiser périodiques, en concours littéral et artistique, création d'une compagnie artistique communale, Création aussi d'une subvention pour la radio BNFM et Diamond FM, deux radios communales. Établir chaque année une grande agenda culturelle en relation avec les acteurs, création d'espaces verts et aires de jeux et de loisirs. Social, soutien aux étudiants pour logement, orientation et bourse, assistant aux lieux de culture, octroi des bourses et ce assistance sociale tous les événements religieux dans la localité, accompagner la population dans la région et le développement est et revenu, création d'une mutuelle de santé pour les ailleurs, l'informel, soutien aux personnes vivant avec handicap. Environnement, renforcer les moyens de lutte contre sa salubrité, mettre en place le système efficace de d'une collecte des ordures ménagères

centre culturel boo xam ne war nañ fa mën a exposer suñuy bagage ci artiste peintre yi répétition yi war na mën a jaar yoon war nañu soxla ay studio enregistrement ñu ngi lay koy li ñuy wax nii xam naa ni sama jàng français soriwul mais dinaa jox léegi ki nga xam ne mooy Ousmane mu liiral ma ko tamit lépp loo xam ne moom la ñu wax def nañ ko mémorandum dinañ ko jox ministre de la culture léegi mu yóbbaale ko bu demee xam ni artiste Mor Lan ñoom ñoo dajaloo wax lii lépp luñ fa wax ci biir nag bari na trop mënuma ko li mais xam naa ni dinaa jox léegi sama grand bi sànni kaddu mooy Dred Maxime dafa def effort bu rëy tey jii laa ko woo mu bàyyi lépp ñëw kon xam ne Mor Lan daf ko ñor Dred Maxime moo ma may loon tey dañ tey remercier ko suba suba dafa war a jouer concert mais dafa bàyyi lépp bi mu ko woowee tey mënuma

Euh, deuxième initiative bi mooy euh, daje yu mel nii soxla nañ ko euh, ci wàllu ci wàllu culture fii ci mont donc li ma ci li ma ci dolli xam naa pour le saluer initiative bi ak remercier ñëpp ñi nga xam ni pour jàpp ci peut-être mon nom au nom de tous les artistes mais xam naa ni Euh, dëkk la boo xam ne euh, bëri na artiste euh, artistes yi bëri nañ fi lool.

suma waxee ci séréer ma ne ñu ndibi yen yen daa bokkori yen xam nara ay sanj fii yen béb yen daa bokkori après caaj ko pay merci beaucoup à uh, tout le monde merci à vous